Euh, maa ngi koy nettali sëriñ Moustapha Sy bu bi biñ gisantee daf na ma ah biñ ne ma yaa ma soxla rek dama ne ah du ma ko yéexee ñëwal ñu gisee. est-ce que kon loolu damay wax ne danaa ci sant ñi sant si ñëpp. gërëm leen. loolu mën a may sa rencontre ak sëriñ Mouhamadou Moustapha Sy responsable moral. non maa ñaan audience bi nag. Hmm. dégg naa ñu ne moomu a oolu déet. man maa ñaan audience parce que ni ma ko ñaanee audience mooy ni may ñaanee audience ñi sant si ñëpp ak kilifa tariqa bi yëpp pour gis leen man maa demoon maa maa jaaree ci Cheikh Serigne Cheikh Sarr Oustaz Feex maam Cheikh Sarr waaw waaw Oustaz Feex Sarr Cheikh ah Oustaz incha waaw mhm. man maa ko woo téléphone mhm. ne ko ñun waa ab naa wax adara Tidiane kat dañ doon ñaan audience pour gisanteeg Serigne Moustapha bu mu sar ci mu ne ma may ma ma informé ko bi mu ko informé yàlla dogal mu ne ah comme que Fata moo ma soxla bu ñu ko yéexee na ñëw jeudi. ba mm-hmm. dëgg yàlla nag euh, man maa ngi door a toog ak sax sëñ Moustapha Sy comme noonu jotaay ñu gisee bi ma ñëwee ma gis mbégte lu mu am ci dalal ñu dama dama am mbégte ci dalal la ndax dama gis liggéey bu am solo bi ngay liggéey ci tariqa bi moo tax biñ ma waxee ne ma yaa soxla rek. ma ne ñëwal ñu gisee dëgg yàlla wax ma mbégte lum am ci ñu gisee ma it ma xamal ko ne comme ñu nit am nañu mbégte ci dalal gi ñu dalal ndax sëriñ Abdul Aziz Al Amin moo ñu santoon ne lii bu jotatee képp ku aju ci tariqa bi nañ la yëgal te ma ne ko doo ku ndaw ci tariqa bi lii laa ko wax. Mhm. tey du ko ndaw nag. Hmm? Moustapha bu Moussa Chidid. Hmm. ah déet loolu kay jarul ma di ko wax sax ci réew mi ñu nekk. Hmm. du ci ko ndaw. nangu ko ak bañ ko ñoo ci bokk yam ci diini jii ñu nekk du ci ku ndaw ci tariqa bii ñu nekk du ci ndaw ci kër Sidi Hadj Malick du ci ku ndaw ndax sëriñ euh, tariqa bi dafa am ñu yàlla may ay sens moom sens bi ko yàlla may mooy am na ay ndaw yoo xam ne seen orientation ci tariqa bi ak ci kër Sidi Hadj Malick ci moom la ko yàlla jël loolu sens am la lii may seede nag firiwul ne sëriñ Moustapha Al Amin mooy sama sëriñ waaye damaa gis rek lu ma mën a jàngat muy euh, gis gis nga fi sëriñ boo xam ne taalibeem dañuy sol ñetti casquette loolu lu mu làmb mooy bu teyee mm-hmm. taalibe yi doon ay politiciens yu mat sëkk yu sotti maa la ko wax ñoo lay Euh, politigal. sol t sol casquette. waaw ñooy dem ñooy dem campagne. waaw proximité campagne. waaw waaw ñooy meeting. billahi. bu tayee ñu doon ay militant. Mm-hmm. bu ëllëgee tay boo ne leen kaay dool soldaar ñu door ko ñu doon ko. sol tenue de maa la ko wax. du ñëpp ko réussir. am na koo xam ne bu sëriñ bi dañaa wuu sëriñ bi man affaire politique bokk ma ñaata nga fi gisoon tey koo xam ne sëriñam la topp waaye bi nee ba politique doo ko gis ci Moustarchidine déedéet waaw waaye ñaareel bi ni mu leen tàggatee ci diine xool guddig àjjuma yi léegi ñu bari ñu ngi sàgganee guddig àjjuma waaye doo gis Moustarchidine bu sàgganee guddig àjjuma loolu nag damay wax ne benn sens la du ko yàlla may loolu ma seedeel ko ko man mu doyee di mi sagu Seydil Hadji Malick la waaw du tee yàlla defal na ko ko côté la bu mu réussir te day delluwaat ci kër Sir Hadj Malick. lillaahi noonu la yàlla mayee keneen nit lu ni mel mu xamal ma ne am nañu mbégte yëkkati de million jox ma na ma yow laa ko may bi ma génnee mën a gars yi ah comme que ñun dañuy yalwaal luñ def ci xadra bi te amuñu ko 2 million yaa ngi nii noonu laa ko yëkkatee tegaat ko ci loxo ñuy organiser parce que man gëm-gëm boobu laa am. Hmm. comme que ci turu xadara bi lañ fëggeewoon buntam xaalis bu ma jox rek ci xadara bi lay delluwaat. ne moom lim ma xamal te euh, yow laa may xaalis bi loolu la ma wax waaye man bi ma génnee dama ko joxaat waa xadara bi loolu mën nañ ko seede. est-ce que deux millions la yëkkati jox ma loolu tuutiwul. Hmm. dañoo demoon rek ngir yëgal ko xadara bi mu doon ko yaatu xamal ma ne ma yàlla dafa dogal euh, ma soppu sëriñ Babacar Sy Abdou. Hmm. ak sëriñ Cheikh Tidiane Sy. Mansour Mansour. wax ma ni leen di toppee ak seeni taxawaay lépp mu wax ñu ko euh, damay wax ne nag sëriñ Moustapha du ko tuuti ku may audience rek bàyyi na la xel. billaahi euh, soo demee it ngeen toog di waxtaan bi mu ma waxee loolu moom sax dégg naa mu nettali ko dama ne ko sëriñ bi ah nii nga mel ci cofeel hmm. ci Serigne kër Sy Abdou ak sëriñ Cheikh nag laaj na ñu xam ko. Hmm. lii laa ko wax. Ah, oo oh, dëgg yàlla mu doon nit bu baax ma ne ko tey euh, sëriñ bi ma ne ko dafa am lu yàlla dogal. Hmm. parce nit ñi dañ la sopp. billaahi dëgg la. Ah, ma ne ko asalaamaaleykum nit ñi di xëm. billaahi ah, di jooy. ma ne ko du ñëpp la ko yàlla may. déedéet wax dëgg yàlla xaj mbeng hmm. euh, yàlla mii dogal dogal na. ma waaw ma ne ko nit ñi ñoo bëgg di la gis ci sa biiri mbokk ma ne ko parce que yàlla miy dogal dafa dogal maa ngi fàttaliku bi ngay jaale si sëriñ euh, Mansour ma ne ko li muy doon doon dëj nit ñaa ngi yuuxu ko jooy billaahi ngir mbégte gu ñu am ci gis la billaahi dëgg yàlla euh, damay wax ne nag kër yenantu bi kër yenantu bi kër Seydina Cheikh Ahmed Tidiane miñ yaakaar këru diine yi nekk Sénégal amul kër gu amul problème amul waaye ñoom ñi ko séq la leen ci jig jigu ci taalibe yi gis nga bëri ñay ak ñay hmm. bu jo yoo duggee pënd baa koy rey mooy taalibe bu ne bu sañoon kër sëriñam hmm. sëriñ sa ko séq juboo man loolu laay ñaan billaahi mooy neex ci suñu xol yi ñun man loolu laay ñaan yàlla na yàlla dem ba jamono ñëw mm. kër gi yëpp àndandoo bennoo buñ ne problème amul nag ay naafeq lañ problème am na ci diggante yi yëpp la mm. amul këru diine laa gu nekk Sénégal gu amul problème waaye taalibe buñ buy ñaan day ñaan këru diine yëpp mm. juboo déggoo toppante soppante am fa ndax bu ñuy wax doole train vago yu jàppante moo waral ñuy wax doole train. wallaahi. tax na daal loolu ci gàttal. maa ngi lay sant nañ ñëpp nag gërëm ñëpp. jërëjëf dama tudd ñii rek waaye ñëpp la. wallaahi sëriñ Babacar Sy Abdou. wallaahi moom amuñu ci moom sax. Seydi Hadji Malick mu sotti la ah, heure buñ daan koy soxlaa mu ubbi ñu buntam sëriñ Moustapha si doomam ñu koy sant di ko gërëm. ndax ñaari ci moom laay jaar wallaahi. Euh, ñëpp daal. wallaahi sëriñ maam euh, Ousmane bu maam Habib. billaahi euh, dégg nga sëriñ Cheikh Tidiane si bu sunu waajur Serigne Mansour Sy borom daara yi ñëpp waaw ku ma ci fëgg buntam nga recevoir ma. loolu nag maa ngi leen ciy sant di leen gërëm. daf dina ne rek euh, bu Serigne Moustapha bi rek dafa juróon beneen. ampleur bu mu amoon. ndax biñ ko dugalee ci euh, réseaux sociaux yi dafa mel ni nit ñi. loolu da doon doon mbégte ci ñoom. mbégte loolu nag. ba amoon ay yéene def lu bëri ah yàlla na yàlla indi lépp. amiin yaa rabal juboo ak déggoo man de loolu laay ñaan. wallaahi moom la taalib yëpp di ñaan. bi waaw waaye nag comme li may wax rek mooy ku xam. Hmm. xam ne Fata bi biñ koy takkal. Hmm. nga xam ne mooy Serigne Abdoul Aziz mooy Al Amin. loolu moom. loolu moom ñëpp ko xam. waaye du tey kenn ku nekk nag la ma gis ci yow man ko seede ma seedal la ko loolu rek. waaw wallaay ndeysaan. ah maa ngi loolu rek la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. barakallah di la sant. di wax ne ñu ngi ñaan mbokk yi ñu abonné. ci ndox téy gi ndax dooley ndox jën te di abone dana dooleel seen bi dana waral it moyens yi war a am ci seen bi ñu am ko ci ay matériel mm-hmm. euh, incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tabaarakallaahu jërë ngeen jëf mbokk yi mi ngi noonu dégg ngeen waxtaan wu am solo bi taxoon mu ñëw waxtaan ak moom heure booy waxtaan ak Abdou Fatah Sarr ci Serigne Abdoul Aziz Al Amine doo doyal waaye tabaarakallaahu seede yi nga def ci Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy ak ni nga waxee ñu ngi ñaan taalibi Seydi El Hadj Mari yëpp taalibi Cheikh Ahmed Tidiane yëpp di waxee noonu ndax fi mu nekk nii. li réew mi laaj mooy kenn ku ci ne booy wax sa taali bi nga wax ci lu rafet keroog seen xadara bi ngeen def sant Seydi Mouhamadinil Moustapha bu Serigne Abdoul Aziz Al Amine di sant Serigne Moustapha bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ci jëf ji mu jëf seen diggante yéen àddina bépp moo leen ni dundal mooy guddal seen fan kon yow rôle bi nga ci joué rëy na lool ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan tamay la wér alxaaji Fara taalib yëpp kontaan na ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan ci barke yonent bi responsabilité yi Serigne Abdou teg ci sa loxo yàlla nga ko fu kawe kawe kawe kawe kawe ci barke Serigne Abdou Aziz alxaaji beeg jëm ak Mame Ndokh TV bi loolu ñu ngi